waxtu wi ñu toll waxtu wi nag dafa laaj waxtaan waaye waxtaan bi nag moom mooy addiinu nasiha foofu rek la jëm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 dal naan dal xam ne lépp nag ci ñàkk xam la jógee ndax dëkk bu sell bi ku fi nekk te xamoo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 jéem a jox dëkk bi xormaam ji nga ko war ji mu yellool ji nga ko war a jox euh, yàqu yàq yàq démb yi moom xëy na yàq yu bari mën na am yàgg na fa am mën na fa loolu ni yàlla binde dooy dig doomu aadama waaye nag jóg di yàq si ne loolu kooku moom du luñ mën a seetaan ndax maa tey rek la ndax weddi baatu kilifa loolu maa tey la te loolu luñ mën a faj la nit ko amul kilifa moom lu ko neex def waaye lu neex ku mën a doon mën na ko ko def li ci am solo daal mooy di nu góorgóorlu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 ak yàq loolu du nu ku mën a ñàkk gis di ko di ko di ko sàmm dëgg la da loolu day day day am ñu di ko gis ci ci ci suñu bët loolu nag mooy mooy li nga mooy mooy li nga xam ne moo tax de su ko mën a ñàkk a faj nga dëkk bi moom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 noonu ma ko waxee ku ko def xool ma te déglu ma da am tawfeex joo mën a jëriñoo ci adduna ak ci àlaxira ndax man gisuma dara sëriñ bi rek laa gis te sëriñ bi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 sàmm nu war nekk ci li ñu fi war a bàyyee nekkal ko fi loolu mooy suñu wartif kon du nangu mukk jóge ci foo mën foo mën a jóge ñëw nekk fi loola neex waxuma laa di àgg ci maa tey loolu du mën a nekk kon nag euh,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 ñoom ñi nga xam ne suñu boobu moo leen dénk sañ-sañu adduna bi seen seen seen seen seen seen seen seen xel seen xel seen xam rek lañ mën a jëfee te fii ñu ko fii lii ñu santaane loolu lool gisuñu leen ñoom loolu mooy seen pexe xamuñu amuñu mën pexe loolu lañ gis te jubluwu ci dara lu nit ñi mucc waaye foofu la seen xel toll foofu seen pexe tol te ñoom ñi adduna bépp ci marché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 ñoom it ñu fi nekk ñoom ñu ñoom it nit ñi la ñuy wut mënuñu ñàkk nit ñi loolu ana ciy pexe lañ ci xam ci pexe moom ñu dem jéem ko def def ko seen kanam lañ ci xam ci mooy jéemoon sëriñ bi génn ci li nekk loolu du xalaat ak jéem ko fay jëlee loolu it yàlla boromam moo ànd ak moom mënuñ ci dara loola dem ba agsi fii kon loolu rek sëñ bi moom mosu leen a xañ ci aw seen ji lu day ne lii day ci we lañ ajoo ci moom te te du yàq dara ci diinam lépp defal na leen ko lépp mi ngi fi histoire a fi kon eh, nanu góorgóorlu bu baax góorgóorlu ba ba xam suñu wartif nekk ci leen war a nekk ñun lay amut te it sëñ bi no noppal nañu ci lépp teg nañu ci yoon wa lu mat a fàggu ci noonu fàggu na ko yoon ci boromam lu mat a ñaan ñaan na ko waaw rawatina dëkk bi borom defal na ko ko kon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 na fi na fi yem maa maa nag ala kulli haal noog ñooma noog ñooma bu ñu seede dëgg la digg euh, euh, tolluwaay bi metti na waaye adduna ño adduna bépp ko bokk fu ma fu ma la metti na loolu yàlla moo yor jaam bu ne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 buñ ne tekk rek buntu feeñ waaw ndax ni eh, ni ni ku ni mbooloo moo xam ne amuñu fu ñu amuñu fu ñu jëm amuñu lu ñu lekk amuñu lu naan loolu itam borom xel yi ñoom waaye borom xel lañu borom xam-xam lañu nit ñi mooy seen liggéey loolu dañ koy gis te buñ ko gisee dañ sàkk fexe waaye nag jërul dalul jërul ñun ñu ñaaw di di di sàkk di fajal suñu bopp te mënal suñu bopp dara noonu rek la demee. noonu rek la demee kon góor góorgóorlu bu baax delluwaat ci sëriñ bi loolu mooy delluwaat ci yàlla góor góor fas yéene góorgóorlu gën fas yéene gën a mën nekk ci li war li leen war a nekk noonu rek la demee amul du dara xew àdduna nii la basa demee naka jekk naka jekk naka jëkk lu ne am na fi lu ne suñu toom diggale na ko jaamu ñi lu ne am na fi te loolu moo noonu lay doxee loolu moo agsi tey loolu dafa mat a xam dafa yomb a xam te it des ko war a muñ as diggante des ko war a muñ waaw tekk boo ne tekk rek moom suñu suñu boobu moom moom mooy mooy mooy mooy mooy lépp waaw te bu yàqul jiwul waaw waaw ñi mu dénk àdduna ji itam borom xel lañu borom xam-xam la bari ñuy pexe buñ buñ bu li accès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 du yàgg du yàgg lekkoon naanoo moom euh, di mbooloo mbooloo mu lekkoon naanuñu loolu moom ñoo ñoo corona kon nag bu ñuy daw <laughs> daw corona yi jëm ci <laughs> jëm ci loolu amul solo loolu loolu da loolu ci suñu bopp ñi ñëw borom jàmbaar ji jàmbaar ju rëy ji fi nekk kaw ak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 am am am am am am am jàmmi ñun ñëpp looloo nuy looloo nuy may jàmm suñu digganteeg geek geeg suñu teg lépp jub rek mooy jàmm ji nan lu ceeg teg ci yoonu njub góorgóorlu teg ci yoonu nag ay ay bànqaasam mooy bay ci ndigal bàyyi tere te yàlla tax di lu baax di wax lu baax di def lu baax te yàlla tax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 mooy safaan ba war xam daal di jóg teel ci jóg ca teel suñu bopp suñu kem kàttan buñ ko defee rek yàlla suñu bopp moom moom moom dimbali leenu rawatina nag di ngeen ko xam ne eh, am nga tawfeex yoo xam ne suñu borom dana boole sëñ Tuubaa muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu yem kon eh, nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax eh, dañu wéetal yàlla te xam ne yàlla mooy def mooy dindi yàlla mooy def moy dindi xam na li muy def xam na li ko tax def kon nañu góorgóorlu wéetal yàlla doolu sëñ Tuubaa noonu ñaari baat yooyu rek waaw sant yàlla sant sëñ